ci màggal bi nga xamee ne ñëpp si daal ñoo retraité jamono jooju rencontre bale fii mooy bu ñu soxla nekk jàll nekk jamono bu quatre-vingt deuxième jour mu am lu mu ma lu mu ma laajte non c'est-à-dire suuf boobu yore moom man ma dangaa amul moo tax ma ne ko daal baax na ca ba nga xam ne dafay ñëw seen moom ak kol

ump leen yéen dëkkandoo yi moom ci certaine ci njabootam parce que ni ma koy waxee dajale ma ni njabootam di ko je Elhadj dafa amoon cofet ci man lool di wax rek yàlla saa bu ñu mosaa julli takkusaan bu amoon naa activité di julli takkusaan bu ñu mosaa julli takkusaan jàkka ja ñu fukki vous vous Cumhurda muzi elhamdülillahi rabbil alemin hamki bana köpeği muhabbe. Nasir Kur'an'da başka bir yagın benimle sesle bu mahal muhabbe de yok. İsme defteki isme diğer biraz. Bir taraf def şimdi toujours dama koy wax sumay bopp déggu ma leen ko déggu ma ko aussi ak njabootam ci kaw bu ma amee occasion laaj na yow toog jamono ma ñëw toog nii ma féete ko heureusement ci wetu ndeyjooram xam na nga toog mu teg ma am projet ma ne ah hélas yaa sa projet projet bu demee nan Hiroshima ah, di ke dama bëgg nga dem ala nekk ah sëgëm nangu kon ba ko wala ma ne ah hélas yëpp benn julit du gën tudd yoonu makka xanaa ñàkk amoon ci ne makka ku nekk nga ca mu ne ndox dama bëgg nga dem ci wala deuxième ñu commencé koy koy situation ba muy jógee tamit waa ji mu ma ci buntu kër gi man aji bu di bu dem waa ji pour dem jàkka ja aji yëkkati cinq kaas dama malaan yi malaan yi maa ko def malaan yi maa ko ma ne ah aji yi bëri na malaan ma ne waa maa ma dem a dem nag vraiment boobu nag suma consultation pour ma dem a dem nag dafa xawoon jafe parce que Sam Trou ak quatre-vingt-dix quatre vingt di waaj am nag honnêtement li ma ci def li ma ci mas boobu ci kayit yi hikayet Katamintala Jama. Dr. Jack MKD Clone, the development of the Modica. Jama won vraiment à Katamintala sur le demande avec son contrôle. On a beaucoup plus que vraiment. Et ma foi, vous le verrez. Négatif, il n'a pas yomna. Mais nag ndax heure bii ci mag ku nekk xam na ne du lu jaar parce que ñu wax ci waaye awma ci benn jaaxle parce que sama kër laa ñëw xanaa regret rek li ma la teg ci biti boobu léegi nga toog di xaar am naa ci regret waaye maa ngi am mbégte bu baax ñëw ci kër ñëw ci sama kër nuyu naa ñëpp ku ma lim jiw sama sama baay yi sama yaay yi sama jabar yi sama càmm yi fi nekk doom yi dëkkandoo yi ñëw ak les militants mais je dirais dëkkandoo yi mbokk yi ñu fi jël carte yi ku nekk maa ngi lay mun ma woon def porte à porte fii nga bokk ci ñi may dalal xel xam naa ne yaa ngi may ñaan gis bi moo leer waaye rek nga ñëw ba gis la xam la ne rek xeebu ma ñaan boobu ndax lépp rek wóllëre la lépp daraanga te yow nag gor buy def war a mën a def ak yow ndax góor dëggoo ngi nii Bahrain jullite ngi bu am pës pës mi ngi nii allah yàlla baaxee nag sama waaju mu seq ak moom lu nekk mën naa wax ne du xaritam frère la muy sàmm lool kon tey c'est normal su ma ci yab sama mën ñëw nag papa Ibrahima maman la may wooyee. sama papa di wax yaay moom muy wax mam kon xam nga loolu lu profond kon papa tey tànk yi xam naa ni ne tànku saafonte la mënoon naa bañ a ñëw ndax ma ñëw ma dem ma bañ a ñëw moo yem li ma soxla dama ko fiy fekk ndax am na lu ma dal loo xam ne bi may soog a dama ñëw sama yaay indi ay carte d'identité dina ma am sa waa kër papa eh, Ibra ñoo la ko jox xam nga loolu dafa lu neex te bariwul ñu ko am kon jërëjëf waaye yooyu yëpp yow la ñëw bi rek dafa di sàkku ñaan wax rek ne maa ngi defaat lii nga ñaanal ma ñaanal le président de la république ndax xam nga maa la woon confiance bi mu am ci man waye engagement bi ma jël té di nek gor bëgg na ne engagement boobu ma respecté ko jusqu'au bout de mu am résultat loolu rek mo war ma ci sonn sonn bi ma ci sonn Macky Sall nag papa duma la ci wax lo xam manam limuy def da koy suivre actualité nga discute même politique daf fi def nag lu benn président def Sénégal yàlla baaxee nañu ay baax yu fi jaar mu ne bay nga sa waar waaye li mu def en sept ans les trois présidents réunis en en cinquante ans mënuñu ko def defuñu ko won boog yàlla mayu leen loolu mu ko may kon moom loolu signe la mandarga la ci ñun Sénégalais yi. muy ñaan rek li muy ñaan man ma naan nañ ko njukkal moom mu naan mayaat leen ma def am cinq ans. def deuxième mandat li ma commencé woon ma yeggale ko. am yeneen yoo xam ne dama leen koy commencé ndax lañ bëgg Sénégal duma ci sori damay wax rek ne fii bi sama problème. waaye dama bëggoon xale yi ngeen gën a jàpp ci biti biti su may wax biti mooy yeneen quartier yi su may wax biti mooy feneen ay nit ñu war a xam ne xam ngeen leen wala seeni xarit walla seeni àndandoo yi nga xam ne que ni gëmuñu Macky Sall rek ngeen prêcher la bonne parole xamal leen kan mooy ñoom kan mooy Macky ba tax ñu augmenter les cartes ñu am chance 24 février li nga xam ne moom lay xaar ci ñun yàlla def mu am mooy lan ñu voter ko massivement pour permettre ko mu am deuxième mandat bi au grand bonheur du Sénégal et des Sénégalais.

noonu leen permis ñu maîtrisé yi di campagne gaay di campagne di campagne xam naa lu bare nag lu digge def DG mi li mu liggéey ñun ñii rek liggéeyal na ndax ñun man dañoo am fële si kooru kaw la fan ngeen passé nous PDG monsieur Pape Demba Je na si teex bi ko président Macky doon def lancer travaux yi ñuy draguer booru ba ay bateau 2000 tonnes lañ doon am foofu mais léegi ay bateau 5000 tonnes lay lay. ndax loolu yàgg na. politique

ba ay di nag di nuyu aussi tamit tey ñoo Fambaye ñoo ànd sànq tey di wax ne am na mbégte ñëw ci kër gi ndaxte dañ ci daan ñëw pour politique waaye am naa tuuti pincement au cœur ndax. sama papa ji nga xam ne dama ko bëggoon ci sama xol tey fekkuma ko fi waaye nag loolu la yàlla dogal dañ ko koy sante rek te di ko ñaanal fi mu jóge fa mu egg fa mu nekk gënal ko fii ma koy rendre hommage bu baax a baax a li ci des mooy li ma wax léegi jéggi waaye sama càmmiñ yi Eh, ñi jël parole ak ñi jëlul parole maa ngi jéggalu bu baax maada ndax eh, heure bi ma ñëw du heure bis waaye xam nga politicien rek te mënuma woon tëdd mënuma woon tëdd itam te jaaruma ci benn ndax nag eh, yow sama mag nga ni nga ko waxee rek noonu la demee dan ma cam itam bëgg sama jabaru yaay comme on kon ndax wëllëre war naa mën a dikk ndaxte yow ku ne xam na sa diggante ak ak njëkk jarul bi jaaraat wax nga ko ñeneen wax nañ ko euh, ba ba mu dem ci goro yi ndax goro yi ñoo nekk ci kër ni ñu nekkee fii waxtu wu leen soxlaay ña nga ca kër ba law ba ci kër ma tey wax dëgg yàlla jërë nga tànk yi du woon tànk sax xëy na wut carte ndax ni ma ko waxee fee rek laa koy waxee fii ndax xam naa ne carte yi am naa ko fii ba pare waaw xanaa rek eh, ñaan ñu dem ci biti waaye fii moom si acquis ci biti nag boo déggee ma di ko wax mooy génn quartier bi koo gis nga mën ko waxal wax ko li tax mu war a voter Macky Sall parce que tey Macky Sall moo soxla te Macky Sall bu soxlaayee ma soxla ndax bi ma waxee ne ma demal Thiès nga liggéeyal ma ba ma ne ko waaw pour man loolu engagement la ci laa ne nag dinaa def lu ma mën ba nit ñi xam ne ne def naa li ma mën boole kook ñaar boole ko ak samay bokk ak samay xarit ak samay dëkkandoo fii nag dama leen di wax sama doole fii la commencé te bi ma ñëwee ba tey gis naa ni ngeen ma jàppe ni ngeen di sonnee ci sama mbir loolu mu doy dara du la doy normal na ndax li ngeen wax waaye bu leen neexoon ngeen dañ ko def walla ngeen nëbbu def leneen waaye sincérité ngeen ànd ak man tey ji sama ndam mooy seen ndam te wane ngeen ko kon nag wax ji wax ji defe naa ne feneen ku laay ba euh, ñaan rek la ñaax di ñaan yàlla le 24 février ni ngeen ko waxee yéen ñëpp ñu mën a jubilé ñun ñëpp ndax day nekk mag Macky Sall te triomphe boobu dama bëgg ngeen bokk ci bu baax te xam naa da ngeen ci bokk bu baax ndax da ngeen ci contribuer wax ji loolu rek la woon mënuma woon egg kër ga te jaaruma fii saafonte ak yow ah saafonte ak waa kër leen daal la leen loxo ngeen ñaan ñu ànd rek parce que mbir mi moom ñoo ko bokk moom ma ne ko ñoo ko bokk dafa rafetoon rek ma jaar pour saafonte bi waaye xam naa ne carte yi moom dama leen ko laaj yéen <laughs> jox ngeen ma ko ba pare jërëjëf Madé jërëjëf